parce que ni nga paramétrer sa monétisation moom moo am ay ay jafe-jafe loolu nag lañ ñëw indi ci ay leeral pour kanaal yi nga xam ne yëpp dañuy monétiser li ñuy waaj a wane ci vidéo bi tey ñu bàyyi ko xel li si gën nag mooy boo seetaanee vidéo bi te yaa ngi monétiser demal vérifier ba xam effectivement sa canal yooyu yëpp def na ko wala defu ko parce que mën na tax li ngay gagné maanaam li nga war a gagné ngay gagné moitié bi. nga war a gagné fenn cent mille francs di fa gagné cinquante mille francs lu tax parce que dafa am yoo war a activé te activé woo activé woo voilà loolu la ñuy dem xool yi léegi boo ñëwee dugg ci sa canal fan ngay dem nga dugg YouTube Studio boo ñëwee YouTube Studio nga ñëw paramètre paramètre nga ñëw nga cliquer paramètre boo cliquer paramètre xam nga paramétrage interne mooy ñëw léegi fan ngay dem da ngay ñëw fii ñu def chaine nga cliquer ko première étape bi fii lañ koy vérifier boo ñëwee fi ñu def nga ñëw après fi ñu def paramètre avancé nga cliquer paramètre avancé soo cliquer paramètre avancé looy def da ngay wàcc waaye bala ngay wàcc nag xam naa liy taxul du bitu vidéo bi waaye yi ma fiy romb nii yëpp nga bàyyi ko xel ndax def nga ko fii mu la defal wii defal la fii non defal la je veux vérifier vérifier yow ba xam mi ngi ci noo bi su nekkul ci non bi def ko ci noo bi léegi bala ngaa romb voilà nga continuer wàcc. non yii moom xam naa mën na bañ a feeñ sa canal parce que ay compte publicité Google Ads la sooy def ay vidéo YouTube publicité des fois mën na day affiché fii compte yi day associé moo tax lii su dee yow utiliser woo fonction yi mën nga ko bañ am voilà mais bañ nga ma romb ko nga gis ko nga gis yii fii te gisoo ko ci sa compte nga defee lu fi war am te amu fi la yaa ko fiy def boo deful publicité du fi am loolu la rek voilà léegi ñu wàcc tuuti bu ñu wàccee nga xool fii defal na la fii sous-titre automatique su fekkee ni da de option sous-titre automatique bi nekkul si fii nga xam ne mooy euh, ne pas afficher les mots potentiellement nga cliquer ko mooy pour nit su waxee lu vulgaire YouTube détecté ko YouTube bañ ko bàyyi mu jàll. fii moom yow tànn sa bu la neex la mooy say abonné na feeñ wala du mu feeñ du bu bu mu feeñ da ngay nëbb wala nëbboo sooy nëbb fii ngay dindi danga nga koy décoché nii décoché ko bàyyi ko nii continue su fekkee da nga bëgg mu feeñ nga bàyyi ko par défaut ni ko YouTube def mooy da koy coché man noonu laa ko bàyyi voilà. léegi nag àllikala ji si partie bi fan la muy fii annonce annonce moo concerne publicité yi fii mu defal ñu désactiver les annonces par centre d'intérêt ñu bëri nag léegi-léeg day ñëw fii ñu kose ko daal di enregistré daal di jàpp seen jàmbur te xamuñu ni wax nañu YouTube ne ko publicité yu bëree bëri yoo xam mi ngi ci YouTube nga koy dawal bëggatuma mu daw sama chaîne lool lay tekki soo kosee fii loolu lay tekki léegi nag lii vidéo bi yaa ngi koy seetaan te yaa ngi monétiser bul ko waaj damal dugg ci sa chaîne nga xool fii ñu étape bi ñu def annonce ndax dafa coché wala coché wul su fekkee danga kaa fekk mu coché comme nii nga def ko nii nga décoché ko nga dindi ko su fekkee danga kaa fekk nii nag mu décoché nga am dafa vide nii weexul nga bàyyi ko noonu parce que nii la war a mel warta de warta kenn waru koo coché lu tax parce que boo xoolee texte bu ndaw bi expliquer nañu ñu fi tuuti lu mu ñu defal mu ne ñu si vous sélectionnez cette option option bi kat boo ko coché aucune annonce personnalisée ne sera diffuser sur les video de votre chaîne maanaam soo defee lépp loo xam ne publicité bu ñu personnalisé la dootul daw ci sa ay vidéo publicité personnalisée mooy lan xam naa di ma laaj loolu publicité personnalisée mooy société yi bu ñuy publicité benn produit di demander YouTube pour mu wanal leen ko ay clients yi mu yaakaar kese dinañ ko jënd nga xam ne publicité yooyu di toppaate la nga xam ne da ngay dugg ci canal bii gis fa publicité bi dem ci site internet gis fa publicité bi dem ci beneen site gis ko fa mooy publicité yi nga xam ne centre intérêt day ciblé waate te yooyu nag ñooy publicité yi ëpp doole ci YouTube yi tax nga gañ xaalis bëri léegi soo leen éliminer ci sa canal kat publicité yamamaa yi ngay léegi la moo stop comme les annonces basées sur les centres d'intérêt des spectateurs les annonces de marketing maanaam mooy li ma laaw tënkal sànq annonce yi nga xamante ni centre d'intérêt nit ñi dañuy ciblé ñi ñu bëgg mu ngi ne kiy def publicité exemple may joxe bi def publicité ordinateur sama sama sama publicité sama annonce bi ñiy connecté wu ordinateur yow nag nga nga décoché lii ce qui fait que façon publicité yooyu dootu daw sa vidéo moo xam koy seetaan ordinateur ku seetaan ordinateur comprendre nga parce que yaa demandé YouTube bu mu ko si dawal te publicité yooyu ñoo ëpp doole nag ci internet loolay bi publicité ciblé yi mu waxal ñu les revenus de votre chaîne risque de baisser considérablement mu ne nag su fekkee da nga kaa gis nga li ngay gañe xaalis ci sa chaîne bi dina wàcc wàcc bu méttee métti mooy dina baisser considérablement mooy dina wàcc bu méttee métti maanaam li nga war a gañe mën ngaa sax wàcc di gañe moins cinquante pour cent nga war a gagné fenn cent mille francs mën nga fay gagné sa ay trente mille quarante waxuma la sa cinquante mille ma la wax sànq voilà parce que préciser na ko fii bu leer mu mun ñu de plus Les rapports sur les actions acquises et les listes de remarketing ne seront plus disponibles pour votre chaîne maanaam lii xam naa ñiy def nag euh, publicité promotion ci YouTube ñoo koy gën a xam ay remarketing ak yooyu maanaam boo lancé benn produit la benn publicité am ñoo xam ne xool nañ ko te peut-être xëy na intéressé na leen mais jënduñu wala dara nga lancé waat ko ciblé waat ne ñooñu kase ñi xooloon publicité ba mu jeex ñu wanal wanalaan ma ko ñooñu kase comprendre nga ay teg yëpp ay technique bu la ci YouTube. façon yooyu yëpp nag dootul am waxuma la ak dara sax information ci loolu yëpp mënatoo ko am voilà comprendre nga kon léegi li të euh, bu ñu résumé li ñu wax fii mooy lan mooy daanaka daf lay perte loo xaalis bu bëri soo coché fii ngeen bàyyi ko xel bu baax kon fii warul warul coché wu loolu c'est clair n'est-ce pas léegi ban étape moo si topp dañuy ñëw fii paramètre de mise en ligne par défaut fii la ñuy ñëw ñu cliquer fii voilà léegi bu ñu cliquer fii lan la ñuy def dañuy sote fépp ñëw fii ñu def monétisation cliquer monétisation bu ñu cliquer monétisation am na ñoo xam ne fii da ngay gis ay yoo xam ni benn benn yoo xam ne comme nii du coché voilà du coché benn coché wala ñaar boo fi bàyyi coché woo ko rek xam nga fële contraire bi la da nga koy bañ a coché mooy da ngay bàyyi rek publicité yëpp di daw sa sa sa vidéo yi fii par contre nag publicité yi nga bëgg ñuy daw ñoom ngay coché kon lu muy tekk yëpp ngay coché parce que yëpp nga bëgg mu daw voilà annonce superposition mooy yiy tege ci kaw vidéo yi. fiche sponsorisée mooy yi ñëw à côté fiche yooyu day day am na yu tege ci kaw vidéo yi am yu tege à droite annonce vidéo désactivable mooy publicité yi nga xam day nekk day day ñëw ci sa vidéo balaa balaa nga koy mën a dindi il faut pas cinq secondes defal la bouton bi nga sauté wala nga continuer mooy publicité désactivable yi voilà. ak yi mën a defal annonce vidéo non désactivable publicité yi nga xam des fois day mat ay cinq ba 15 secondes te il faut nga bàyyi ko ba mu jeex te fa ñaari publicité yi ñooy ëpp ñooy ñooy tax nga ëpp li li ngay gagné. te am na ñoo xam ne da nga fi dugg gis duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko kii duñ ko coché da lay perte lu xaalis bëri voilà fi mu defal la pendant la video maanaam mid roll mooy comme boo amee vidéo boo xam ne ëpp na huit minutes jëm kaw nit ki di cliquer ko di seetaan rek am publicité bu daw commencement bu seetaanaat ba ci kanam am beneen publicité bu daw ci biir soo di dee fii décoché ko lu muy tekki say vidéo yi benn publicité courte moo ciy daw benn publicité courte moo ciy daw soo soo coché fii nag. mooy tey soo amee vidéo boo xam dafa ma 30 minutes nit ki mën na koy seetaan balaa muy jeex ñett wala ñeenti publicité daw ci biir vidéo bi loolu muy tekk fi nga waroon gañe fukki dërëm mën nga faa gañe ñeent fukk voilà loolu mooy li nga xamante ne moom lañ leen indi ngeen bàyyi ko xel bu baax fii nga xam ñu def récapitulatif la ñuy def voilà léegi bu ñu annulé récapitulatif da ngay ñëw fii paramètre cliquer boo cliquer paramètre la ngay def nga ñëw fii cliquer chaîne boo cliquer chaîne nga ñëw fii paramètre avancé nga wàcc ci suuf xool fii ñu la defal annonce ndax nii la mel nii la war a mel soo fekkee mu mel nii nii nga dindi ko nii après def enregistré parce que nii la war a mel soo paree foofu looy def nga ñëw fii paramètre de mise en ligne par défaut nga cliquer ko soo ko cliquer lu si topp nga ñëw fii monétisation la moo si topp nga vérifier ndax fii nii samay bos bi mel noonu la sa bos mel su amee benn benn bu mu ci coché wul par exemple boo duggoon fekk bii nii coché wul nga fekk bii coché bii coché bii coché bii coché wul bii coché looy def da ngay bii soo coché après nga ñëw nga def bul fàtte enregistré balaa ngay génn léegi ce qui fait jox nga possibilité si sa vidéo yëpp ñuy dawal li nga xamante ni mooy annonce yëpp léegi des na nag xam naa euh, doo yem foofu kese parce que lii lu muy tekki liñ la woon fii mooy paramétrage par défaut de mise en ligne la yi ñu fi def yëpp mooy tekk vidéo booy dugal rek da am comme def nañ ko nii léegi enregistré nañ tëj nañ léegi vidéo buñ munti di dugal rek vidéo bi day am loolu comprendre voilà léegi nag am na lu des li des mooy option yooyu nag amul action groupée action groupée xam nga defoon nañ ci vidéo waaw boo ko bëggee seetaan flèche bi jox fi mu la joxañ ci kaw am na lien bu génn soo ko cliquer rek dina la yóbbu ci vidéo bi ñu defoon action groupé nga xam mooy lan ak nuñ koy defee mooy benn affaire boo bëgg def ci vidéo yi nekk sa canal yi yëpp nga bëgg ci def benn affaire par exemple sama vidéo yi nekk sama kanaan yëpp damaa bëggoon daal yokk benn émoticône wala yokk benn mot ci fin bi wala dugal ci benn mot clé wala changer description wala defaraat au lieu may topp vidéo di ko def benn par benn mën naa ko def action groupée di am xam ni li loolu may yokku dama koy yokkandoo ci vidéo yëpp wala loolu may dindi dama koy dindeenoo ci vidéo yëpp loolu mooy action groupée waaw boo seetaanee vidéo boobu ñu la wax di nga ko xam nañ koy defee léegi nag lii ma la woon fii paramétrage par défaut yi amul ci action groupée action groupée lu mu am nga monétiser wala nga démonétiser kon nag léegi loolu lu muy tekki vidéo yi nga dugaloon da nga leen di topp benn par benn di xool seen monétisation ndax jaar na yoon wala jaarul yoon loolu nan nga koy defe mi ngi mel ne bu fekkoon ñun bi dañ ko defuloon ni ko war a defee tey ñii seetaan nañ vidéo bi def nañ ko ni ñu ko ba pare ba tëj comme ni ma loon sànq léegi da ñëw vidéo bu nekk da ñëw fii analytics bi fii nga cliquer soo cliquer dina lu yóbbu ci analytics bi bu la ci analytics bi lan ngay def da ngay ñëw fii monétisation vidéo bi nga cliquer monétisation soo cliquer monétisation vidéo bi gis nga fii la lay indil vidéo bu nekk bosam ndax coché nga ko wala coché woo ko voilà jeex nga bu ñëwee fii yii yëpp nga wër bu ci coséwul la coché ko bu ci coséwul coché ko bii coché ko bii coché ko bii par défaut automatique la bii nga coché bii nga coché yii bu la ko joxee option yi su fekkee vidéo bi dafa matul huit minutes bii du ci bokk bii du mën a génn bii ci vidéo yi yi yi nekk huit minutes jëm kaw nga koy amee voilà pour nga mën a gérer fii annonce yi mën a personnaliser placer annonce fu mu la neex ci biir vidéo yi voilà loolu tam defoon nañ ci vidéo lii mooy li nga xamante ni noonu ngay xoole ndax sa monétisation bi li ngay gañee tuutiwul tuuti boo xam ne sa faute la yii yëpp nag su fekkee jaan na yoon su fekkee dafa tuuti nga xam ne ci option yi la peut-être sa vidéo yee gàtt ak leneen mais bul xañ sa bopp ay revenu YouTube fekk na yow yaa mal paramétrer sa monétisation kon vidéo fii lañ koy yemale di la jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw incha allahu rabbi jërëjëf